yéenekaay gi di Walf Fadjri nee na bu ñu waxante dëgg dëkk bi di Sénégal tàng jër la def ndax ñi nga xam na ñooy transporteurs yi jamono ji ñoo ngi gittangaas ak gouvernement bu Sénégal ci lu jëm nag ci mesures yi nga xam ne jël nañu ko ginnaaw accident bi amoon ca diwaanu Kaffrine ak lu soxal wàllum carburant bi nga xam ne yokk nañ ko ba maara de tali maanaam njëg gi ak scandale yi nga xam ne moo am ci réew mi rawatina bi nga xam ne fësal na ay ndëngate ay manquement yu lu jëm ci xaalis bi nga xam 2024 yéenekaay gi de Le Quotidien nee na lu jëm ci mesures yi nga xam ne gouvernement bu Sénégal jëloon na ko ngir na xeex wàllum accident nee woon na porte bagage dootul am ci oto yi waaye nag loolee état bu deltu na ci ginnaaw nee nag fii ak benn at la ñu may yéen transporteurs yi maanaam benn at ngeen dindi porte bagage yi journal bi nee na en tout li ci am daal état bu Sénégal daw na deuxième ñaar ñi nga xam ne ñoo ñaari bus yi l'observateur nee na ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi ñoo teg pression ci nguur gi moo tax gouvernement bu Sénégal daal di daw deuxième daal di arrière ci lu jëm ci wàllum porte bagage yi nga xam ne ñoom waxoon nañu ne dañu koy dinde te ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi jamono ji nag ñoo ngi dànkaafu ne ci ab grève la ñu jëm yéen a kaay gi de la turbine ñi nga xam ne ñooy clients yi nag jamono ji ñoo am ay jafe-jafe ndax bëri ay bus yoo xam ne dañu leen a bloqué ci àll bi yéen a kaay nga xam ne mooy Alassane Ndoye tey ci lay jël dañuy dem grève wala ci dogal yi nguur gi jël ak lu jëm ci wàllum carburant nga xam ne yokku na yéen a kaay gi di wal fa wax lii wax la sa des ginnaaw nag njëg yi nga xam ne yokku na ba maana daytaale na leen leer ne lu jëm ci wàllum facture ndox yi loolee tamit yokku na facture courant yi yokku na lu jëm ci wàllum dund gi nag yokku na moom tamit yéen a kaay gi de la turbine nee na sa diwaanu sigi coro foofee lu jëm ci wàllum yokku carburant bi tax na ñi nga xam ne ñooy jakartamaan yaay yéen a kaay gi de l'info xëy di ñu xibaar yi nekk Petersen jamono ji ñoo ngi ci li ko war waral mooy liggéeyu BRT yi yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na gouvernement bu Sénégal war nañoo jël ay mesures maanaam jël ay dogale ci marché yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ndax bëri na ci ay marché yoo xam ne pëccëxoo na ba maara détaillé mën na la bëri ay marché yoo xam ne courant ba nañu ko installé dara baaxu ci te nag am na ay marché tamit yoo xam ne amuñu bouse d'incendie journal bi nee na bëri na ay marché yoo xam ne tilib na ba maara détaillé kon jot na sëkk gouvernement bu Sénégal jël ci ay matukaay yéen kaay gi di bés bi bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall ak gis-gis yi ni nga xam ne moom la ci wuutee ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllum droit ñuy ay constitutionnaliste journal bi nee na gis-gis yu wuute la ñu ci amee Kader Boye xam-xamam màcc jëm ci wàll wi moom nag nee na Ismaïla Madior Fall est dangereux pour nos institutions moom jàpp na ne Macky Sall wurtam ñetteelu candidature waaye moom Kader Boye nee na Ismaïla Madior Fall maanaam njombe la ci sunu institution yi professeur Ismaïla Madior Fall moom en principe la waxoon ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature waxoon ne kenn munta def ñaari mandat yu tegaloo ca digg ba moom Ismaïla Madior Fall mu mel ni génn ba set si wecce di wax ne ñoom waa APR bu ñu jaayee ñaari million carte maanaam Macky Sall dina nekk candidat professeur Babacar Gueye moom ti muy ab constitutionnaliste waaye li mu wax ci ñetteelu candidature dafa tey xel ndax moom professeur Babacar Gueye ci atum 2017 dafa waxoon ne constitution bi may na Macky mu def ñetteelu mandat te nag 2023 moom professeur Babacar Gueye bi ñu ko mu wax 2023 lan nga ciy jàpp yéenekaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Mansour Faye nee na nag jamono ji lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall amul wii amul non nee na ñu wii nee na ñu wii nee na ñu wii moom Mansour Faye nee na Macky Sall dina nekk candidat ci élection présidentielle 2024 amul lenn luñ ciy lam-lamee yéenekaay gi de Le Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Mame Mbaye mi nga xam ne moo jël Ousmane Sonko yóbbu ko fa mbaxana doone benn na Ousmane Sonko daf ko wax lu dul dëgg ci nag lu jëm ci wàllum 29 milliards Prodac yi tax mu yóbbu ko mbaxana doonee benn journal lu Madiambal Diagne bii de Le Quotidien nee na Ousmane Sonko soo muy tuulee dina way mbay maanaam mën naa am ay jafe ci lu jëm ci bokk ci élection présidentielle 2024 journal bi nee na Ousmane Sonko bi ko waa dig digloo maanaam de des investigations criminelles Ousmane Sonko dalee na wax na leen inspection générale d'État loolee la wax waaye nag damaa juuma li ma bëggoon a wax mooy inspection générale des finances journal bii di laas Mambay Niang moom nag nee na bu demee la muy sàkku ci àttekat yi maanaam Ousmane Sonko ko lu toll ci 29 milliards Dakar yi mu ko tuumaal lay journal bi di Libération nee na poorum Dakar mool diisa dafa am lakk ko fa am ci benn bato am na sax kenn koo xam ne ñàkk na fa ma dégâts matériels am na fa ubbi nañu cib enquête yéen kaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar nañu Xaadim Mboupa mooy étudiant bi nga xam ne moo solo woon solug jigéen ngir defal benn xale bu jigéen bàkk ca diwaanu Jurbel moom Xaadim Mboup moome nag université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru teg na ko ay daana maanaam ñaari at yoo xam ne du mën a bindu ci benn école bu nekk ci biir réew mii di Sénégal yéen gi di Le Quotidien nee na docteur Abdoulaye Niane di expert fiscal nommé ñu ko directeur général bu BND maanaam banque nationale de développement économique yéen kaay gi di mi ko di cee xëy séq waxtaan wu yaatu ak El Hadji Moustapha Mboupa ñu gën koo xam ci Siré mi nga xam ne moo nekk ci Série Salma xëy na séq waxtaan wu yaatu ak réew mi ko di cee wax na lan moo ko dugal ci Série Salma wax na ay jaar-jaarama wax na tamit na Sénégal bëri na ay réalisateur yoo xam ne ay kàngam la ñoo nee na lu jëm ci wàllum cinéma africain maanaam ma ngi avancé bu baax a baax yéen kaay gi di Source A nee na kese muy combat Modou Lo Ama Baldé bi nga xam ne gars yi ñoo ngi koy ŋawta ŋawtee biram ñi ngi nee na déggoo am na ci te Modou pare na ngir bëri ak booy Niang am na benn promoteur boo xam ne wax nañu ak moom ba d'accord yéen kaay gi du sunu lamb nee na Modou Lo ak Boy Niang numéro 2 seeni avance danañu si jot lundi wala mardi yéen kaay gi du sunu lamb nee na Zarko Ada Fass suba ci dimanche ji la ku sa morom duma Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen may seen revue de presse